ci yam ndax yeneeni jéego dina ko sekki teg loole lépp ngir ñaax nit yi ci feebar bi di cancer. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew li ci gën a fës ba su tey di élection ya amal ca Guinée Conakry ñu war tànn seen njiitu réew lépp nag juróomi million doomu aadama war a dem ci mbañ ngi tànn seen président dañuy dem foofule ca Guinée Conakry fekk fa ndaw RFM Barthélémy Ngom Barthélémy ñu ngi lay nuyu di lay ziar. Alaaji Njóogu Jën naka waa Guinée ba ñëpp a ngi si jàmm. ça bi leer naa. waaw boo mënee gën a yëkkati baat bi rek ñu gën la mën a dégg. waa acca waaw fi mu toll nii nag vote euh, yi fi ngeen ci toll ndax euh, mbir yi tàmbali na. waaw mi ngi tàmbali na euh, tàmbali na électeur yaa ngi ñëw ndànk-ndànk xam nga sànq nag taw bi taw bi mu xëyee fii ci Guinée. Hmm. moo xaw a perturbé tuuti démarrage vote bi mais bureau yenn bureau de vote yi umbi nañu jël nañu seen matuwaay yëpp électeur yaa ngi ñëw ndànk-ndànk Euh, Alpha Condé mi nga xamante ne mooy président sortant bi ca Kaloum commune bu Kaloum lay wote fu nga xamante ne sorewul dala dara plutôt ak euh, palais présidentiel bi Cellou Dalein Diallo mi nga xamante ni moom mooy euh, principal opposant am mhm. moom ca dik ca Dixine Port ca Dixine Port lay wote ci gannaaw këram sax d'ailleurs foofu la foofu lay voté ci xayma daal fukk ak ñaari candidat bokk na ci Alpha Condé mi président sortant bi ñoom ñoo nekk en liste lu ëpp juróomi million ci ay électeurs ñoom ñoo fas yéene dajaloo ci mbañ gàcce yi ni ki tey jii ngir rek euh, voté bureau de vote yi ubbi nañ ko ci bu huit heures bi jot euh, euh, yenn bureau de électeurs yi ñu ngi ñëw wax na ak sànq mhm. Guinée bëri nañu wala bëreeguñu ñu génn gum takk nañu mbooloo wala ndànk-ndànk par benn benn non par benn benn la ñuy ñëw xam nga mhm. taw bi ci suba mhm. taw bi ci suba moo xaw a certainement perturbé démarrage bi tuuti mais taw bi arrêté na Euh, ba fi mu ne nii euh, ñu ngi ñëw ndànk-ndànk yaakaar na xëy na di euh, d'ici le reste de la journée dinañ ñëw lu bëri ñoom ñëpp voté ndaxte lu ëpp 5 millions ci ñoom war nañu ñëw ci mbañ gàcce yi. Guinée nag démb alaaji njoogu jéen ci couvre-feu la fa ba noonu ni ki tey ji ci suba tey donc ba supp woote. fii ci Guinée Conakry am na sax ay matuwaay yu bëri yoo nga xamante ni autorités yi yore kaaraangi gi. Euh, jël nañu ko bokk na ci tere oto yi ñu daw tey donc jàppale ne benn woto du nekk ci mbeddu Conakry ni ki tey ji loolu pour ay mesures de sécurité la mhm. euh, ni ngeen ko xamee investi euh, également campagne électorale bi daanaka bari woon na coow ak ay xeexoo mhm. un peu partout ci ci biir réew mi loolu sax waral ay guinéens yu bëri amee njàqare ci élection bi tey bi nu muy demee waaye ci loolu kuréel gi nga xamante ne moo saytu élection yi fii di seen di commission électorale nationale euh, indépendante moom nee na jël na ay mesures de trans ay mesures transparentes maanaam ay mesures yoo nga xamante ni euh, dana mën a dalal xelu fukk ñaari candidat yi candidat yi dalal it électeurs yi euh, électeurs yooyu ñu ci bëri ci ñoom du ñàkk sax dégg nañ ko suñuy antenne li ñu bëgg mooy ñu woote ci jàmm ak salaam ku nekk woote daal di ñibbi sa kër toog jàpp sa njàmbur xaar résultat yi hmm. ñoom it lu ñu bëgg moo di résultat yi nga xamante ni moom mooy nekk ci urne yi nañu joxe résultat yi te bañ a truqué euh, bañ leen a truqué xëy na ñoom dañoo njort ne la ñuy joxe la ñuy la di wone du bokkee ak euh, résultat yi nga xamante ni moom la ñuy faral euh, di siiwal démb ki nga xamante ni moom mooy opposant bu njëkku Alpha Condé di Cellou Dalein Diallo njiital UFDG du Union des forces démocratiques de la Guinée am na ab délégation bu CEDEAO boo xamante ni dalal na ko démb ca makaanam ga nekk fële Euh, ñu waxtaanee euh, processus électoral bi waaye. Mhm. ci kanamu mission CEDEAO boobu ñaawlu na ñàkk transparence na daal processus électoral bi fii ci Guinée dara ci leerul ndaxte moom euh, mi nga xamante ne moo gën a fës ci kujje bi. opposition bi de façon générale duñ leen associé ci processus bi looloo tax mu mu ŋàññi ko ci kanamu waa CEDEAO daal di ñaawlu dogal bi nga xamante ne autorités yi jël nañ ko autorités yi dañoo jël dogal ne résultats yi duñu ko affiché ci centre de vote yi PV yi bu ñu leen jëlee dañ leen di acheminer directement. Hmm. Euh, ci CENI mu compiler résultats yi laata muy euh, jël dogal jox ko kam ko war a jox ngir mu siiwal leen loolu nag ku jegi jàpp ne euh, loolu tey na xel ndax CENI bi bu dee compté mën na mën na mën na lëbëj résultats yi looloo tax daal àndunu ci loolu nag ñu yégee ko waa CEDEAO ngir. Euh, ñu def ci euh, ñu def ci euh, lu nu war. Hmm. li li li ñu mën su ko defee élection bi élection bi mën a leer donc résumé loolu la ñu mën a jàppagum bi xaar. Hmm. voté ak Alpha Condé ak Cellou Dalein Diallo si fii ci kanam Cellou moom. Euh, bu midi jotee la ñu la ñu wax ne ci lay voté ñëw voté si Alpha Condé xam naa it ci boor boobu lay voté gaa nag ñoom jokkook entourage am sax dafa xaw a compliqué hmm. waaye seetlu moom boobaak léegi ñu ngi jokkook euh, ñoom ñoom xamal nañu ne bu midi jotee hmm. lay ñëw Dixine Port ci gannaaw këram foofu lay euh, voté Alaaji Joobu Jéen jërëjëf loolu yëpp kon di ñu ko toppal incha allah Barthélémy Ngom di su ndaw foofu lay ca Guinée Conakry ñu koy jaajëfal baax kon di a ànd ak moom ci bés bi yëpp ci lu soxal élection présidentielle yooyu ñuy amal ca Guinée Conakry Eh, yaakaar ci Sénégal Nigéria ñu dimbali leen ngeen ñu mën a tàggat ñi nga xam te ne ñooy seen i takk der eh, président bu Guinée Bissau moo ko xamle gannaaw eh, bi mu jógee ci nemmeeku bu tukkim nemmeeku boo amee woon te Nigéria moom ak président bu Sénégal Macky Sall leerali noo mànkali kon no Mankali xam naa ñu si dellusiwaat mu jëm euh, ci président bu Guinée Bissau di yaakaar nag ci euh, Sénégal ak Nigéria ngir ñu jàppale ko ngir mën a tàggat ñi nga xam te ne euh, ñoo di seen i takk der gën a mën a xariñ moom nag mu xam ne ko gannaaw ab tukkib nemmeeku boo xam ne amaloon na ko ci Nigéria no Mankali leen ci àndal kon. bu muy egsi ci aéroport international Oswaldo Vieira bu Bissau général Oumar Sissoko Embaló dafa déclaré ci journaliste ne dafa invitation bu président bu Nigéria. Nigéria ak président sénégalais Macky Sall xamante ni ñooñu dañ ko garanti ni dañuy koy dimbal pour mun a ut ay matukaay ndax ñu mun a dimbal jàppale Guinée Bissau Oumar Sissoko Embaló moom dafa dem àllarba bi ci Sénégal ak Nigéria pour bu liggéey ak chef d'état nigérien Muhammadu Buhari ak bu Sénégal Macky Sall Oumar Sissoko Embaló moom dafa déclaré ni Nigéria kooku dafa nekk benn actionnaire bu Banque africaine de développement tamit Sénégal moom dafa am ay relation yu gën a baax ci adduna bi ngir loolu réew Guinée bi saw dafa soxla pour mun a relancer réew mi ndax ci ñaar fukk at yu weesu Guinée bi sax moom dafa jànkonteel ay situation yoo xamante ni dañoo day waaru loolu nu ko wane Oumar Sissoko Mballo mu ne dafa war am benn équipe bu technicien sénégalais ak nigérien ñoo xamante ni war nañu ñëw semaine buy ñëw ni fii ci Guinée bi saw pour ñu mun a préparer benn programme bu d'urgence président bi moom dafa expliquer ni programme boobu Banque africaine de développement boobu def ko war a financer nu mu gën a gaawee am jàppale bu banque arabe bu développement économique pour l'Afrique bu ñu ko laajte ci yan domaine stratégique la programme d'urgence bi dañ ko war a teg président Sissoko Embaló moom dafa tontu ni loolu dañ koy indil ci infrastructure maanaam ci yoon yi ndax yoon yu réew mi maanaam ñu nekk ci région yi ñoo ñu baaxuñu loolu waaye tamit ci capital Bissau lu waral ci formation bi chef de l'État moom dafa expliqué ni fukk dem ba fukk ak juróom xale yu góor yu ministère des affaires étrangères ñooñu dañ ñu leen di war a yónni Sénégal pour ñu mun a suivre formation foofu ak yeneen responsable yu secteur de sécurité ñooñu dañ leen di war a yóbbu ci Nigéria ak même objectif ñu waa Mankeli Bissau RFM. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram sport weekend dañ ci ànd ak Malal jangeen jëf daleen jàmm ci sport weekend ñu dooree ko ak wàllu basketball ak fédération sénégalaise bi jël nay matukaay ngir daal di tàmbali liggéey bi ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ji di ñëw loola mooy àpp gënu jàpp ngir ne mën a doxal seen ay championnat ak lépp waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu maître Babacar Ndiaye njiital fédération gi ne daanu tënkandiku ci moytandiku lépp lu jëm ci wàllu euh, feebar bi moom maître Babacar Ndiaye jokkoon ak RFM. Euh, comité directeur bu fédération bi daje na gannaaw ci ba bureau fédéral bi sàkko woon ndaje mooma ñu waxtaanee naka la ñuy def balaa di sumbaat saison bi àppoon nañu nag ab date ni le deux janvier mille vingt et un la ñu bëggoon a door waaye ca ndaje ma waxtaan nañu ba jàpp ni dinañu ko def ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ji loola ci kaw ñu am nag ndigalu ministère des sports bi war a joxe ngir ñu tàmbali waat wax naa noonu itam lu jëm ci protocole sanitaire ji maanaam moytandiku gi ak bépp matukaay gees war a jël ci ndakaaru ak ci région yi benn mën a basket basket bu dëppook li waa ko wax ngir moytandiku itam mbas mi protocole googa itam sunu médecin chef mu ngi ci di waxtaan ak di ca liggéey ak docteur yi ak waa santé nationale bu yembee ay bés bii di ñëw des ko jébbal ministre des sports ngir mu validé ko ngir nañu daal di tàmbali waxtaanoon fi ba daal di a dafay tegu ci kaw mu euh, dëppoo ak wàllu wér-gu-yaram gi waaye itam nu fexee ba jumtukaay yi yëpp yu nuy teewoo yemb ngir nag yaa jot tambalaat basket bi te loolu ñu ngi ko fas yéene defee dooree ko ak li ñu tuddee tournoi quatre grands ndax nag yi fi mën a delluwaat fa mu nekkoon te itam ci saal yi daanu wàññi lim gi. ci xabaar itam moom Me Babacar Ndiaye wax nañu ni danañu daal di rek euh, def ab assemblée euh, extraordinaire lu ko tàmbalee fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gii di ñëw ngir rek mën a gën a organiser seen ndorteelub championnat wàllu football des ko waxtaanee ak waa ligue régionale bu football bu nekk ca Diourbel ñoom ña ngaa jàppale ña nekk ca Mbàkke am na ci aser gi jumtukaay yu am solo ak koppar yu ñu yëkkati kon jébbal leen ko bu ñu sukkandikoo nag ca kenn ci vice président ligue ba di Eli Birahim Fall nee loola ñoo ngi ko defee gannaaw ba ñu amee njàppandalu fédération te fédération am njàppandalu ñii di waa projet bi di FIFA Forward moom Eli Biram Fall jokkoo na ak ma Diop. tey jii ñëw fii au niveau du district de Mbacké pour waxtaan ak ñoom ci seen seeni seen i seen i problème seen i jafe-jafe mais aussi euh, matériel bi nga xamante ni la fédération daf ko daf ko bu clubu Sénégal yëpp ñu fekk leen fii nga xamante ni moom mooy seen département jox leen euh, matériel boobu devant tous les acteurs du football ñu xam ñu xam ni aussi fédération yi tamit mu ngi def ay jéego ci vraiment euh, bañ a seetaan équipe yi ak seen ak seen ak seen i jafe-jafe donc xool loolu moo taxoon ñëw nii tey nag nekk matériel boo xamante ni matériel bu am solo la. Euh, parce que ay ballon football la équipe yëpp am ko ay cône la équipe yëpp am ko am na ay chasuble am na am na aussi ay coupelle am na aussi ay échelle de rythme yoo xamante ni avenir de Mbacké bi nga xamante ni moo nekk N1 am na ci lu am solo. Euh, bo bokk jom mbooloo mi fierté ak xewel gi nga xamante ni ñoo nekk aussi au niveau du championnat régional. matériel matériel boobu nag fédération joxe dafa dafa bànqaasoo ci li ñuy wax programme FIFA Forward. maanaam di wàññi coono fédération yi wàññi coono club yi bëgg na loo xamante ni nag. Euh, infrastructure la ci foofu FIFA Forward bi am loo xamante ni formation la. am na xaalis boo xam tamit tamit dañ koy jox club yi financement bu ci nekk di nga am un million. ñu versé ko ci sa compte te loolu xam naa ni semaine bi di ñëw rek incha allah dina dugg ci seen dina dugg seen compte yi. ñu waxtaanee wàllu football bi ca bitim réew la ca gën a fës ci aser gi mooy témboo yu am maanaa yu doxoon diggante Liverpool ak waa Everton ku ne am nga ca ñetti bit ci sa kangi morom Sadio Mané ci dikkaatam dugal na benn bit kii itam di Mo jot na itam dugal benn bit Chelsea itam témboo na ak waa Southampton ku ne am nga ñetti bal ci sa kangi morom. Manchester City tàmbale di yeewu ndax dañoo daan ci aseer ji waa Arsenal benn si dara Manchester United itam wala dajante ak Paris Saint-Germain si Ligue des Champions itam toskoro ñeel na équipe bu Newcastle ñu nga dugal seen ñetti but ci njeexitalu jongante ga noonu lañ leen kon daaji rek daanee ñeenti bal si benn kon Everton Liverpool ak in Aston Villa ñoom ñoo ne ca kaw Espagne ci samedi gi ñiy fare ak waa Real de Madrid ñiy fare itam ak waa Barcelone du nu euh, màcc seen gune yi ngaay ndax dañu leen a dóor ñoom ñaar ñëpp Cadix di promu bi moo dem ca Real daal di faa dóor Real benn bal ci dara Retafe itam daal di teeru ca terrain ba équipe bu Barça dóor ko benn bal ci dara ci waxtu woo xam ni waa Atlético Madrid ñoom dem na ni daani waa Celta Vigo Grenada itam daaj naa dalal ba noppi daan équipe bu FC Séville ca itali la ca gënoon a fës ci samedi gi mooy doxoon diggante Inter Milan ak waa AC Milan mu nekkoon derby bu Italie yëpp ak àdduna doon xaar waaye waa AC Milan ñoo ca mujjee amub ndam ñaar ci benn la ñu dóor Inter de Milan ñaari bit ya Zlatan Ibrahimovic moo ko daal yi rek dugal nu jàpp itam ni Sampdoria de Gênes ñoom ñoo kon daan waa Lazio Rome Naples bu Kalidou Koulibaly ñoom itam daan nanu Atalanta Bergame ñeenti bal si benn Italie googa léegi Milan moo jiitu Atalanta topp ca ci Allemagne itam jàpp leen ni Bayern Munich moom dem na daal di rekk daan équipe bu euh, Bielefeld bi ñeenti bal si benn la match ba mujjee ñu jeexal ak waa France ak ndam lu yaatu li waa Marseille am seen terrain seen diggante ak waa Bordeaux daanaka Marseille yi dañoon kon doxantu ndax bu nu sukkandiku ci score bi ñetti bal si benn la ñu rek daal di daan ñii di waa Bordeaux jàngeen jëf ci tënk li ma gënoon fës ci xabaar yi salaamaaleykum maaleykum salaam ñu koy sant di koy gërëm bu baax moom Malal euh, Junior euh, Diagne mu nekkoon sport euh, week-end mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi ne suñu ñu dafa partel ci li ci gënoon fës. njàqare barikat yi rawatina yu diwaanu ndukkumaan nee ñu nag ragal nañu lool li ñu góob ren bañ a baax donte sax bëri na tax nag ñu xalaat ne daal ren ji mbay mi dafa euh, corona te xamuñu lu ko waral waa Medina fa di naqarnu li ñuy sax saaxee seen suuf ya tax nag ñu amaloon ab doxub ñaxtu ngir nag euh, ñu daal di tegi daan ñi def lu ni mel la tegtalu syndicat bi di SALEF di gën ci syndicat jàngalekat yi nee ñu war a def mooy ñaari yoo xam examen daaw élèves yooyu dañ leen di bàyyi ñu xoolaat eh, li ñu waroon jàng daaw laata nag ñuy dugg eh, ci atum mu bees mi eh, bitim réew waa Guinée di tànn seen njiitum réew tey jii fi mu toll ni sa bureau de vote yi ubbi na ba tàmbali ñoo voté demoon nañu foofule ca Guinée Conakry fekk fa sunu ndaw di Barthélémy Ngom mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène newoon ci micro bi ànd kaderloo ànd kaderloo kon ci machine bi léegi-léegi perte de vue ñu leen di dégtal bu sekkoon ak mbay délégué ñu ràññu leen ko wala ci wàllum théâtre mooy délégué wala kooku moom la demoon nemmeeku ji léegi leen nañ koy dégtal ci perte de vue jaajëf ñeen ak